nouvelle dañu ne nijaayoom la mag rakku baay ji la mhm. voilà donc euh, loolu la ñu jot am comme précision mhm. kooku sax euh, nekkoon euh, déjà à l'hôpital il était souffrant mhm. donc d'après lu ñu kii mais bu mu déggee information gënum àdduna kooku di Xaasin Jeeju ci la piqué benn crise am malaise daanu loolu moo ko daal di précipité donc vers la mort donc il est gën na gën na àdduna te ñoom ci quartier bi nga xam ne jege na lool Lindiane quartier bi nga xam ne Euh, Jaabir ci quartier Jaabir la ñu la ñu la ñu la ñu dëkk donc euh, euh, tey moom foofu naqar ak tiis moo fa am foofu ci quartier boobu la. Mhm. vu la situation bi yàpp jàpp nga ne tey ji mën a doon calme plat daal toute la journée. bon pas Seydina ni may wax ak yow nii maa ngi dawal. Mhm. dèjà di uti yoon bi nga xam ne mun naa dugg ville mais dèjà maa ngi kàr ki Colobane fekk naa fa ay tàkk-tàkk xale yi taal nañu baare nañu yoon bi ndax nañu bàyyi ñu romb. Euh, donc euh, dinañu xool dina dinañu jege parce que comme ñun nous sommes de la presse peut-être ñu am des circonstances favorables. Mhm. ñu bàyyi ñu romb dèjà donc euh, la la la violence commence mhm. soo toogee benn place noo xam lu xew ci yeneen boor yi. donc euh, nii sama kanam bi mu toll nii donc euh, euh, takk-takk yaa ngi nii xale yaa ngi taxaw peut-être di xaar di xaar intervention takku der yi pour rek mun a jàmmarloo ak ñoom donc c'est un un feu dina rare violence la ñu gis si kaw tali bi donc heureusement qu'on a pu euh, donc éviter le feu ñun continuer nañu mais ci kanam tamit ñu ngi seen encore mhm. yeneen tak-tak donc euh, daanaka commencé na Ziguinchor te dina mm-hmm. kon daal xale yi commencé nañu taalal daal xale yi commencé nañu taal waaw waaw ah, jërëjëf eh, jërëjëf kon ñu ngi lay gàdde en repérage euh, Amady Khalil Diémé kon mu ngokan di suñu naatango bi ñu toogal fële ci diwaanu Ziguinchor eh, di def nag liggéey ba am solo eh, ni ki dem ba tey Euh, mu soxal manifeste yi nga xam ne meeku nañ ko fa ni ki démb wax na ko fu mu toll nii daal xale yi commencé woon nañu talat euh, li nga xam moo di artères yu mag yi nekkee fële ci diwaanu Ziguinchor euh, lépp nag jëm ci procès Adji Sarr ki nga xam moo di Ousmane Sonko di procès boo xam ne ni bëgg nañoo xam ndax démarré na waa am déet bu fekkente ne mën nañoo amaat suñu naatango bi di xoxaandong mu wax ñu ndax yeneen parti ñëw nañu parce que wax nañ ko sànq ñetti parti la Euh, benn parti bi mooy bu Adji Sarr benn parti bi di Ousmane Sonko euh, beneen parti bi aussi di euh, Ndeye Khady Ndiaye mi nga xam ne borom salon bi Adji Sarr nag nee nañ agsi na sànq ca tribunal mu ngi sol kon benn mbasin bu weex ànd ak avocat bi kii di Maître El Hadji Diouf Ndeye Khady moom teewoo fa woon bu dee nag Ousmane Sonko moom jël fa jël décision fas yéene du mooy loolu nga xam ne ni moom moo di procès bi léegi bu fekkente ne mën nañu am xooxaan donc rek su ko defee mu wax ñu su fekkente ne mbir yi am na évolution ndax procès bi tàmbali na xooxaan ñu ngi lay nuyu. Seydina